naa tey fii di rafetlu seen teewaay di rafetlu aussi que ni ngeen seen bu rafet bi tey Senegal moo aye ndax tey 24 mars dañuy fal ki nga xam ne mooy jiitu réew mi rendez-vous nit ak askanam ñun nak ki ñu tànn si lolu mooy sunu candidat Amadou Ba président Amadou Ba nak, ñëpp xam nañu nit ku yaru la nit ku dal la nit ku am expérience si réew ku xool parcours am rek da ngay xam ne ne lépp wax Euh, lol moo tax tey euh, bi tay ñëwee en tout cas en tant que plénipotentiaire de la ville de Rufisque ma euh, euh centre de vote yi xol mandataire yi nekk si ville de Rufisque yëpp am nañu dal am nañu yaakar né ni élection bi di dawé si Sénégal vraiment fi ci teungëj ñun war nañu mëna sante Yalla ndax teungëj nak ay nitu mbokk lañu ay xarit lañu légui rek la taxaw wax wa Yewwi taxaw wax kër Khalifa Sall taxaw wax kër Idrissa Seck ndaxte ñun noonu la ñu bindoo du tere nag ku nekk mën nga am sa parpar ku nekk am fooy gisee wante Sénégal moo ñu ëpp ñun ñëpp loolu nag dafa tax du tere ñun ñu ngi liggéey liggéey bi nag pourquoi ñu am si confiance parce que dañu doon jàkkarloo xale yi nekkuñu si caravane yoo xam ne ne da ngay wër di tëggee musique di fo bii dañu jël li nga xam ne ni mooy itti Sénégal di programme président amado Ba muy continuité li nga xam ne ni PSE liggéey na ko ñu wax waxtaan si xale yi xale yi nag xam ay patriote lañu taxaw pour que Sénégal bañ a nekk si tasaaroo Sénégal bu jàmm Sénégal buy économie di daw te loolu lay sentir tey si mag ñi ni ñu xëddee jubal si fii comme niñ koy waxee xëdd voté ndogu jubile